jamono yi weesu ñu daal di gis benn waykat bu mag ñu ràññee ko trop ci dëkk muy Waly Balago sekk am benn ndaw soo xamante ne amoon na feebar bu doy waar. Mhm. Euh, lim bu takk waroon koo faj moom mu daal koy yëkkati ni moo ko ko jàppale oustaz bu gisee geste yu mel noonu nit ku toll ni Waly def ko loo ci wax. Waly sekk moom xam naa ne bu ñu amoon ñaar fukk ci ay moroomu artisam bari na ku gàllankoor dal mën nga cee génn. parce que day li ngay dégg ci internet bi ni dimbali na nit def na lu baax sàngam faj na nit jàppale na nit jëndal na nit kër moom kenn mënu ko konte loolu dama ko remarqué ba ni kii réew mi ñëpp ko war a ñaanal man de duma ne li muy def dagan na musique dafa xaraam waaye xam naa ni xol bu rafet bi nekk ci moom ma gis mu di ko doxee bu ko bàyyiwul ba ba muy dee ci sutura yàlla lay dund parce que yenn saa yi nga gis nit teg ko bët fekk taal bu yàlla taal la moo ko téyal boppam waaye yam yi it mën na koo dimbali keroog bi ma gisee image bi gis ndaw si ni mu toogee ma jékki-jékki ñu ne waali se wallahi wal quraanil azim fi ma toog dama koo ñaanal dama ni kii yàlla na gudd fan bekkaay gis nga càndum loo bëgg a def te mënoo koo def ku la ko defal ñaanal ko loo bëgg a def te mënoo koo def ku la ko defal ñaanal ko te ndaw soosu bi nga gisee image am yow mii li ne ci sa biir xol mooy bu ma amoon moyen danaa ko faj. absolument. mais fajal na la ko mënoo ko woon def na ko ñaanal ko yàlla na ko gën a mën ngir kaa yu mel noonu bu baree mu ciy jàpp. Hmm. man de wax dëgg yàlla miinu ma ko xaw ma ko mais maa ngi koy ñaanal ci darajay Seyduna Muhammad yàlla na fanam gudd mu sax ci di am teraanga loolu laa koy ñaanal parce que li mu def ñépp la ko defal. man awma awma awma musicien sama auto Bintu Caam ci nek mom lay déglu Binta cham lay déglu awma musicien dégluwuma ba man amul awma musicien. ba nga dalay nek ba ma juddo ba fi may waxee ak yow musuma dem soirée waruma xaritu musicien sax faf. mosoo déglu ben musicien. wallahi wal qur'an al azim awma musicien. lima xam ba xam ko moy li muy def bu ko bawul yàlla nako yàlla lafal cet mu sax ci mbax yàlla nako yàlla lafal cet mom wali sek mu sax ci di am xol bu rafet bi mu am. leneen nag moo xam mais jikkoom daal ak xolam bu rafet bi mu am ak ni muy dimbalee ku sonn image yi di ko wane chaque jour nga di ko dégg Bécaye ku ci béggul doon nit man nag su may gisee nii daray xola xam nga ferege ñeent li italien naan dara feregewu ma man tous feregewu ma lu ma gis ci lu baax dama koy wax lii mu nekk yàlla ko ci yàlla sagal amal na njëriñ réew mi de ci yenn côté yi parce que bari na lu état waroon a def wala borom alal di ko gis war koo def. mi ngi koy def mu woon ci bopp mm-hmm. euh, macha allah oustaz récemment ñu gis la nga nekk ci benn projet boo xam te mi ngi jëm ci sa wàllu daara boo xam ne sa propre daara lay doon nga mool ko sa bopp euh, nga commencé di woon commencé woon di ci dox ay tànk projet boobu fan la toll. Euh, càndum projet bi daara internat la ñun yéene bi nu am mooy fi nu ñu jaarale ba nu mokkal alquran. Mm-hmm. ñu fexe ba jaare la fa suñuy rakk ak suñuy doom te bu ñu nee projet oustaz wala projet imam daara la war a doon looloo sabab ñu soisir ubbi daara yi internat donte le projet bi budget bi metti na waaye ñu doyloo itam li nu am ak li nu jaamu yàlla yi di dimbalee ñu choisir ko nag nekk ci di ko def yàlla dogal lanu waroon a móol móol nanu ko matériel yenu waroon a jënd ya ca ëpp jënd nañ ko donte la amagunu lépp ndax xam nga daara joo xam ne boo calculer budget bi lu mu gàtt gàtt gàtt war na àgg ci onze millions. Mhm. loolu yaakaar naa ci koo xam ni taalibe rek nga da ngay da ngay dëbbu daaxe ni ko niñ koy waxee. yaakaar naa loolu yombul dangay taaba taaba rek ah loo am def ci ba keroog yàlla di ko sottal. Mhm. yéene bi nu ci am rek mooy doomu jullit ñi mokkal alquran jàng sharia réew mi am ay cadre nit ñu am valeur ci dëkk bi te jàpp nañ ni ñun suñu rôle la ñu taxawu ndaw ñi fexe ba def alquran ci seeni dënn comme ñun niñ ko defee ci suñuy dënd loolu rek moo tax ñu projet ñu choisir projet daara internat. Mm, comme ni nga ko waxee rek mu doon euh, loo am boo xam te ne sori na ba actuellement yaa ngi ci phase de finition euh, mu doon tamit budget bu takk boo xam te ne tamit lim nga ko léegi ci limu 11 millions ñan nga ci lëkkalool ba mun a ah, ba projet bi mën a avancer ba fi mu toll nii. lëkkaloo ci ak kenn ku dul yàlla ak Seyduna Muhammad ñi ci dugal seen loxo. waaw kay ñi ci dugal seen loxo mooy soppe yi rek. Mhm. yenn saa yi nit woo la maa ngi Amérique maa ngi Suède maa ngi Belgique bëgg naa participer ci daara ji nan laay def man la jaaral fii ak fii nga participer mais amul kenn koo xam ne ci ñi ñu nekk ci réew mi ñi nekk ci réew mi à part Marème Faye Sall amul ku ma ci jàppale Vilgril du ministre du kenn soxlawu ma ko sax ci ñoom duma leen seeti. du ma seeti kenn li may def mooy lancer sama projet ku ma ciy fekk fekk ma ci. ma Marème fay sàll bi ma ko seetee yëkkati na enveloppe am ne ma lii maa ko def ci daara ji. bu duun waaw. waaye keneen nag yëkkatiwul enveloppe jox ma ne ma nangam ak nangam te duma dem ci bureau kenn nag di farang wala ma lay seeti. ful la jooju moom yàlla dénk na ma ko. ñu ngi ci ah di ci bay sunu waar di ci góorgóorlu bu nu amee sunu juróom dem def ci bu nu amee sunu ñaar dërëm dem def ci di ñaan yàlla rek mu pare ci jàmm. Euh, alors euh, oustaz mais choix mer bi parce que gis nañ tamit ñepp Dakar li la gëna xamé mu naan sax moy sa base lan mo waral nga kebe mer li tax ma tamu kebe mer moy fala juddo bima juddo la ñew Dakar yaro Dakar magge Dakar mani teranga jima ñëk am fa ma juddoo laa koy dello te moy tabakh dara alquran ñaarel ba moy Dakar dafa xat yar bi nga bëgg ci xalé yi deug deug deug deug pour nga am ko fokk nga isolé wu. foog nga isolé wu dëkk bi xaw a sori tuuti bruit bi samedi bu rëbaxoo beeg lacrymogène yeeg yi xew ci dëkk bi yëpp foog nga sori ko génn dëkk bi nag ba dem ba nga xam ne sori nga dëkk bi nga installé fa nekk ci dëkk bu calme boo xam ne xale yi danañ mën a jàng alquran danañ mën a nelaw danañ mën a jaamu yàlla dana mën a set dana mën a nekk daara joo xam ni kenn du fa ñëw di jéppi ña fa nekk mm. du nekk daara joo xam ne boo duggee xet di la rey déedéet nekk daara joo xam ni dañu koy organiser mu nekk daara ju jaar yoon daara joo xamante ni bii macha allahu taala yéene bi nu ci am daal yàlla ñu ko yàlla mottalil. Euh, am na solo récemment ñu gis tamit li nga xamante ni mooy couvre-feu bi ñu état daat koy tàmbaliwaat léegi mu mat deux mois. loolu yep ngir jël suñu matukaay par rapport ak li nga xamantene mom moy mooy bi ay jamono ci ginaaw yëkkati won nga ci cadeau yu am solo euh, ñu gis ni doon na mbir mo xamantene ñu bari ci askanu da tan euh, da leen day indi ay gàllankoor ci li nga xamantene moy seen i liggéey rawati nga xamantene seen seen doole seen loxo jorul seen ginaaw tay nan nga jëlee situation bi ak euh, yan yan cadeau nga ci yëkkati. xana ñaan président rek càndum mu wat xel neew ji doole yi couvre-feu bi donte li tax mu def ko moy xex feebar bi. waaye ak lu mën a xew na bàyyi xel ni am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te bari na kuy am teraanga guddi la koy am xam nga ñi yor moto jaar ci restaurant yi di jënd ay pizza yu mel noonu di ko servi xam nga tey euh, ñooñ ñëpp li ñuy am guddi lañ koy am ñu yërëm leen rek bàyyi leen xel bàyyi leen xel yërëm leen xam nga moom num ko gëna mëna woyé a rek ci néw ji doolé yi rek ñing ko koy ñaan moom mi nga xam mom moom la yalla tek ci bop réew mi nga xam tay tey lu mu fi bëgg def rek loolu moy antu kon nak ñing koy ñaan na bayyi xel ñi nga xam seen situation dafa metti ñing koy ñaan na bayyi xel ñi nga xam seen loxo jotul seen gannaaw ñi nga xam guddi la ñuy am li ñuy fortatu bu ñu xëyee joxé ci dépense ñun ñëpp mu bayyi leen xel rek loolu rek lañ koy ñaan. Mm-hmm. Uh, Oustaz mbass mi doon lo xamanteni ni commencé na durer parce que bobu légui mën nañ ni légui mu mat at. Euh, ñu bëri mu xaw leen a jaaxal surtout moo xam muy médecin ku munti doon gëstukat bu nekk te yow ban jàngat ngay def ci loolu. jàngat bi ci am càndum wax ko mooy balaa la yàllaa ko fi wàccee bu doon luy faj Europe ñoo ñu ëpp moyen kon ba tey Europe trouvé na garab gi waaye li tax Europe mënagul a trouvé garab gi mooy xamul ban feebar la. balaa la boo xam ni yàlla moo ko wàccee ci àdduna bi ngir wan nit ñi ni man yàlla maa yàlla càndum am na ñoo xam ne fàtte nañ ni yàllaay yàlla am na ñoo xam ni palaasu yàlla jël nañ ko jox ko keneen nit ñi dem nañu ba seen sëriñ la ñu gën a wóolu yàlla dem nañu ba jël seen sëriñ teg ko palaasu yàlla yàlla nag wane boppam pour wan leen ni man maay yàlla loolu kese la ci jublu bu ñëpp wëlbati ko dëgmal ko wan ko ni yow yaay yàlla yow rek la xam ni yaay koo xam ni laata laa si sinatun wala nawmun mu mu jëlee fi mbas mi. nan ko wan ne rek yaay yàlla rek mu jëlee ko fi daal avertissement la pour wan askanam wan leen ni maa ngi fi ba léegi. existé naa maa ngi leen di bàyyi xel lu ngeen di def maa ngi koy yëg maa leen sàkk jaadu na bu ngeen demee ba mu yàgg ngeen bàyyi ma xel xam ne man maa ngi leen di bàyyi xel mm. loolu rek la ci yàlla jublu.